bismillaahi ma jóg te fàttileeki man général bi soññee ka yeete may fàttili di jiitalaat saa bopp di leen si teg ndax fa sàkkintaan fawul moominiin la yàlla wax ñu fa jexel bu kenn miim may fàttili déegi di ñëw di yoote te kom ne ni bilaay yow nga wuute cey sukuraat boo ca toolee ñu tii kay mbor teew nga ne ñu yeew la ñu daat la leen jame si margo sanga ka waaj cey mbokk mi bis na fekk waaj xamoo fañ nga xamoo kañ lay daa teew te ku si ñun bis dana ñëw ñu daat yeew bam mee la xat xootal la dam lool nañ di ko waaj jaamu buur tafar lu lool bam mee la xat xootal la dam lool nañ di ko waaj ta jaamu buur ta farlu lool bul daa di toog tanaa damay jël sama taa ko may bis dana ñaw ñu fal mawtu aqrabu adaa wa amar wa baxtatan yaati wa ma anhum mafar dinaa faral di dégg wolof naan lu la man la mbaa mu far la daan moom mi di dee kum dëgmal nga وجبي يقول أينما تكونوا يدرككم الموت du làqu waay bun mën a toog ba mucc nañ bañ a topp adduna taaram ba su daal di demal aaxira gu jëm ba adduna ka soof lool te yàqu day bëgg a dem walal ji koy yàqu xoolal ma kee abbi ci kër di sàcci nga gëstu fee gis mag mu toog di kàcci xoolal ma kee tabbi ci kër di sàcci nga geesu fee gis mag mu toog di kàcci man molati am na lu waxoon ca way wa cey mbokk mi déglu ma tay waxiin wa man fulati am na lu waxoon ca mbokk mi déglu ko tay waxiin wa fa dunya adanna bi atoni insanan waayidan kulama yurid min ayaadihi aduna du jox kenn lépp lam taamu nan daal di gaaw tafarru lool ci jaamu góor jigéen du joxante yi randiwu bis dana ñëw du jox la yow sa jigéen laqatu fee di njaalo di sabi xar yu tabbi si ngooy tasaaroo fàtte la buur ba waxoon yow ci alxuraan danaa ko wax mbokk mi tey ñu ko maraan laa taqrabu sinaa amul abuute la buur bi wax ñu war ko ba saboote waaye ku xam ba noppi far fi teerloo dëppu ko yombul maa ngi far taxawlu taxawlu naa sama gaa yi way waangoo man général man may na ngeen xam ko taxawlu naa sama gaa yi way waangoo man général may na si ngeen xam ko subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin